dañuy bànneexu ci seeni bëgg-bëgg di ay gàkk ak i sikk ci seen biir jigéen ju seen bët tegu ñu xedd ko ba duñu tàggook mooy mukk ku ñàkk pastéef ñu fabi la ñu xelu lañu jëme ci bëgge ñu alku lañu réer na nanu ba wàcc yoon wu jub wi topp yoonu balam doomu basoor mi bëgge xiiroon ci njubadi